bâtiment bu yanj bi di grand théâtre ñuy xel nag di dund théâtre googee ci kaw scène bi troupe théâtre yi di yéeg a a wàcc public bi fees dell ak i ndaw ñuy ñëw nag teewe bés bu am solo tey ji nag di bés bu ñuy sargale ci àdduna bi yépp théâtre ci juróom fukkeelu anniversaire bi nag ñu jël thème bi duppee ko jigéen ñi ci théâtre bi fii ci Sénégal théâtre nag nekk lu am solo jigéen ñi di ci yëngu femme le théâtre c'est quelle sa place est-ce que am mu ngi yor place bi mu mérité lan lañ mën a def ba place boobu mu gën a gën faa mën a toog waxuñ nag góor égal jigéen déedéet dañ bëgg a wax rek ku nekk li nga war a def nga def ko ñu ëpp nag ci ndaw ñi tey la ñu njëkk a jàkkaarloo ak lii di seen bu weesoo nag liggéey gi ñuy def ci théâtre bi ñi dundee nag théâtre amee ay jafe-jafe mu dem sax bay xel di noot seen liggéey. même discours la ñuy wax même ñaxtu la ñuy def te mësula a réglé am na problème même ñaxtu lañuy ñuy def da dama jàpp ni ñi nga xamante ñooy def théâtre ay citoyen ñu ma wax naa ko ci benn conférence de presse dañ leen a war a boole ci yëf yi parce que réew bu amul culture théâtre am doxul lanam doxul réew moomu day gisuma ko mbaaw problème mu formation bi parce que tamit pour nga mën a jouer sur scène dafa am loo xam ne war nga ko jàng métier la loolu jotewul ak téléfilm dara loolu la ko Lamine njaay di waxee Lamine Ndiaye nee na ñuy jouer scène comédien lañ tudd ñu def si ci film yi nee na acteur lañ tudd léegi il faut ñu former leen pour ñu mën a def théâtre ba pare bu ñu leen forme ba pare il faut que yéen ngeen jàppale leen pour ñu mën leen gis mën leen a xam parce que bu ñu leen xamul jàppale leen duñ mës a gañee am lu bari ci li ñuy liggéey. yooyu nag coono di yàq kanamu théâtre bi tey ji nag mbir yi ñoo ngi def lépp lu ñu mën ngir mu dañ ci gis-gisu directeur de cabinet bu ministre de la culture. fi mu nekk nii ñu mën a yaakaar wax mooy rek. liggéey boobu nga xam ne état bi liggéey na ko ànd ci ak acteurs culturels yi muy comédiens yi di ñëpp loolu daanaka liñ si doon yaakaar yegg si na li si des rek mooy après ñu appliqué ko li ma bëgg a yokk rek mooy artistes yi dañu war a pour seen protection sociale ñoom itam ñu engagé wu ci biir ah ñoom parce que ñoom ñooy ndeyu mbi liggéey lépp lu ñu si def rek artistes yi war nañ cee bokk ñoo ci war a jiitu ñoo war a bindu ñoo war a engagé wu ba nga xam ni ñoom seen bopp nañ jël en charge lu baree bare waxuñu joxe xaalis parce que état bi dina contribuer mais ñoom ñu sentir ne ñu ngi ci gannaaw di yëngatu pour que seen mbir mi sotti. mu di nag ab aar buy xel di fay ci gis-gisu ñu ciy yëngu fi lekk nag loole di am gone yi tey profité nañu ci bis bi dund bànneex gu rëy a rëy.